waaw li ñu mën a jàppandi ci waxtaan bi mooy lii dafa nekk loo xam ne mëntu na ñàkk ndax amoon nañu réunion bu njëkk euh, ministère ak euh, kilifa yi nekk ci département bi yëpp waaye loolu taxu doon mu doy euh, dañu waroon a dem ci biir te ci terrain bi jot nañoo xool juróomi structure yu am tolo yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci microfinance ak économie sociale solidaire am na yeneen yu des biñ ci demee gis nañu ne vraiment travailleurs yi am nañu engagement Euh, donte am na ay jafe-jafe yoo xam ne jot nañu ko xool parce que loolu moo taxoon euh, ñu santuñu ñu bi liggéey parce que conseil des ministres bi passé président waxoon nañu ñu xool euh, jafe-jafe yi am difficulté yi en tout cas def état des lieux loolu moo waraloon ñu def visite bi di wax ne rek benn étape bu njëkk la parce que beneen bi ciy topp moo di ne dinañu dem ci acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy jëf ndax ñi yore organisation mooy ñi fi nekk ci au niveau orga au niveau de l' mais li tax jóg état du euh, fonctionnaires yi ak agents yi mais ñi nga xam ne ñooy askan wi di liggéey ci microfinance ak économie sociale et solidaire étape boobu nag incha allah bu ñu jógee ci lii bu paree fii ci étape boobu la ñuy dem xool seen i jafe-jafe euh, ndax il faut ñu am benn plan boo xam ne euh, day leer euh, ci acteur yi nga xam dafa nekk ci secteur bi ak ñi nga xam ne ñoo koy doxal. waaw li ma jot gis am na côté boobu doy na xel muy engagement maanaam pas-pas bi nga xam ne wala Pastef bi nga xam ne moo nekk ci agent yi maanaam fonctionnaire yi ak agent yi fi nekk di liggéey loolu gis nañ vraiment Pastef bu am solo ci ñoom. waaye dafa am loo xam ne dalul xel euh, muy li nga xam ne moom la ñu organiser euh, maanaam état bi ci ni muy doxee foofu war nañu defaraat yu bëri bu ko defee yëf yi gën a mën a baax. waaw ci jafe-jafe yi euh, war nañoo benn ñu def synergie fexe ba kuréel yi nekk ci biir ministère bi ñu lëkkaloo nekk benn ndax microfinance dafa war a nekk ab jumtuwaay pour économie sociale et solidaire. beneen bi mooy euh, fànn bi ñuy yëngu dafa laaj yeneen ministère ñu am lëkkaloo donc ex interne ci biir activité dafa am benn lëkkaloo boo xam ne dañ ko war a def loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moo gën a beneen bi nag moom mooy maanaam contractualisation maanaam li ñuy wax redevabilité euh, war nañu euh, structure yi ñuy créer yëpp ñu jox leen lu leer ci li nga xam ne moom la ñu war a def ci seen liggéey ba pare ñu mën ko prévoir nañ yeneen visite yoo xam ne dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy léegi cible yi li ñuy wax cible ñi nga xam ne ñoo tax état bi jóg wala organisation yi yi ñu teg yëpp la tax ñu teg ñu créé ko dëgg-dëgg mbir mi mooy ci ñooñ ñu jëm beneen yoon foofu la ñuy dem euh, su ko defee ñoom ñu mën a jël aussi ñoom seen bis bi parce que yi ñuy def léegi dafa war a inclusif dafa war participative maanaam seen bëgg-bëgg ci loolu la état bi tukkandiku pour defal leen li ñu bëgg donc loolu mooy étape yi nga xam ne moom moo ci tegu ci bu ñu jógee ci visite bi incha allah rabbi